nañuy waxante dëgg fu ñu toll tey daw ngistal bu kenn ci nun xeeb moroomam baa mu koy doyee dal di jàpp ne moo ko gën nañuy nëbbalante suñu sikk di bañ a weejente koo waxal benn mën naa am mu xamal la fukk te waxu ko te yow mi xaaw yi suturas jàmbur leer na la ne am nga loo bëggut kenn xamal la ko kon ni ngay nëbbe say ayib na nga ko nëbbe sa ayib bi moroom nañuy dimbalante ci sunu doole ak sunu wërsëg laa ci sunu xam-xam ak